di leen bëgg loolu daal seen bëgg la daal di leen tudd. Mhm. ak di bëgg wan nit ñi ne xam nañ leen. lan la charia wax ci. connaissance di connaissance ak ñoom daal waaw. ci ñoom nga LGBT ak concert googu ku di roy di wax expression di def sol seeni di marque. di sol seeni drapeau ci ñoom nga bokk loolu yonent moo ko wax de man tashabbaha bi xaw qawmin fa huwa minhum yonent nee ne koo gis muy niru niru lu aw nit mu ne ci ñoom la bokk koo gis muy sol drapeau LGBT wala muy sol seeni marque te xam na ko waxuma ki ko def te xamu ko parce que nit mën na dem léegi ci marché ba jënd ci lu am marque LGBT te xamu ko waxuma ñooñu de mais ki nga xam ne xam ne ne lii ñi ko defar ku leen publicité lañ bëgg ba pare mu di ko def kooku ci ñoom nga bokk ak di def seeni manière di def seeni modd sa téléphone sa internet sa lépp ñoom rek ngay seetaan ñoom nga fan ñoom ngay financé ñoom ngay may xaalis ñoom ngay publicitéel yow daal seen affaire neex na la daal xamal ne ci ñoom nga bokk kullu xisbin bi ma la ladayhim farixoon alquran nee na lu dog moroom ma lay fekki nee na kuréel bu nekk ña ca bokk rek ñoo koy bëggee gis na seen cheikh fii nga tool nii soo toogoon ba yàgg rekk nga dégg min nuurihi nayluma booy jaayu doo ko tey doo xam sax lu lay yënguloo te côté bi muy jógee di nga jéem a xool pour lan la parce que da nga cee bokk dafa bokk ci yow am na koo xam ne bu galane woon rellit mun a bëreet jóg li ñu naan fecc kan mënta mu ñu nënd loolu dafay am moo tax soo bokkul ci ñoom seeni mbir dalay soof dalay c'est-à-dire yow boo gisee lu ci bokk sax mu dalay jéppi daal kullu xisbin bimaa ladayhim farihun boo ca bokkee nag soo gisee seeni mbir da nga cay bëgg da nga cay kontaan te da nga leen di ñemee da nga leen di encourager lu ñu def nga lay ko yàlla na nu yàlla musal ci ñooñu ku niru niru lu aw nit ci ñoom nga bokk. Mhm. jërëjëf Cherif Cheikh Ahmed Tidiane